taatiyal malaal muhammadun salawaatullaahi fi abadin alayhi fi ismi kulli bi kalaam asalaamaaleykum bokki taalibe yi ñu ngi fii ci Touba ci kër Soxna May bintu Xaadimal Mustafa ci bis bu tedd ci weer wu tedd di laylatul xadar bi ñu ñëwee fii nag fii ngeen gis nu jàkkaarloo moom nii mooy kër soxna may waaye kon kon ne xam na ne lii ngeen seen ci biir kër gi muy alxuraan du gan ci soxna may kon lii këram gii mu toj nii def ko daalee kaamil dëkk ak alxuraan loolu xandeer la bu demee ci biir tukkiwut dafa ñibbi loolu war a tey ñu war a am waxtaan wu ñu jëlee nag ci seeni Aliou Ndaw mu war koo waxtaane ak yéen waaye ñu fekk fi kilifa yu mag ñu dennante ak sëriñ Modou Mahfous mi nga xam ni mooy jëwriñu liggéey bi te soxna may teg liggéey bi ci loxoom sëriñ Modou Mahfous mi ngi nii taxaw ngeen di jàkkaarloog moom ak sëriñ Mamoun Mbakke moom Cheikh ma euh, sëriñ Fallou Mbakke ak sëriñ Lamine Mbakke moom Cheikh Mourtala ak sëriñ Mamour Mbakke moom sëriñ Mouhamadan moom maam Thierno Birahim Ndaamal Daaru Musti ak sëriñ bu Bousso mi nga xam ni moo yor barabu sëriñ Bamba te wattu ko wattin wu sell léegi nag ñun ñëpp dañuy daal di ànd déglu nu laaj sëriñ Aliou Ndaw lu waral bis bii ak fii nu la fekk ci alxuraan ji nga xam ne moom la sëriñ Tuubaa gënoon a bëgg di ko teg ca kaw di tëdd ci suuf lu waral soxna may mënatu def lii aouzu billahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ah li waral bés bi moom yaakaar naa ne danaa ko bàyyi sëñ Mahfouz mu wax ko ma wax ci li nga xam ne li mooy sama wàll mooy kàggu gi lii ñu gis daal du dara lu dul benn ci mbir yi nga xam ne mooy wane ne Sëriñ Tuuba ñaan yi mu ñaanoon deme ko ci dëkkam bi di Tuuba jëme ko ci njabootam gi jëme ko ci taalibe yi jëme ko ci jullit yi jëme ko ci mbindeef yépp ñaan googa ñaan yooya yàlla nangu na ko lii ñu waxtaane tey benn rek ci yi mu ñaanoon ndax li aju ci lii ñuy waxtaane tey mooy wàllu xam-xam dafa waxoon ne wax yu bari la sax waaye dañ ci tudd benn bayit rek waj'alhu da'ban maskana taallumi wa mawdia alfikrati wa tafahum sama dëkk bii defal ma ko muy dëkku sakku xam-xam muy dëkku xalaat muy dëkk boo xam ne lu mbir yéene yéene yéene buñ ko fi indee danañ ko mën a dégg danañ ko mën a xam ca anam ba gën a rafet loolu kon benn la ci ñaan yi mu ñaan yoo xam ne yet yàlla da koo nangu ba tax nag waa këram yépp ak taalibe yi yépp kenn ku ci nekk am na loo yëngatu loo xam ne mooy wane ne lii de sëñ bi ñaanoon na ko te nangu nan nangul nan ko ko lii moo koy jëmbal soxna si nag li mu yëngatu sax du lenn bari na waaye dafa tànn lii ndax li koy tegtale moo di li ñu dajale fii tey muy laylatul qadar di bés bu màgg bés bu tedd bés boo xam ne bu bari tuyaaba muy bés boo xam ne am na ñeneen ñu ci war a waxtaan waaye li ñu ciy wax rek ñun moo di mbooloo mu ñu toll ku leen dajale ci benn barab ñuy fanaana tudd yàlla di tagg borom bi tabaraka wa di julli ci yonent bi ba bët ba bët ba bët set sallallahu alayhi wa loola bu doon ci beneen weer bu mën a doon it tuyaaba ja kenn xamul nu mu toll rawatina nag bu dee ci weer wi di weeru koor di ci guddig laylatul qadr mu tombeek nag muy guddik ajuma boole ci kooku boobu tuyaaba kenn xamul nu mu toll waaye soxna si di yëngatu lool ci di yëngatu ci leneen waaye nag lii mu boole ko ci ngir la mu xam ne euh, maanaam euh, lu sëñ bu mag fonkoon la te xam ngeen ne lii muy def day yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na man dalla ala xay faloo ajru mislu ajru amili ku tegtal lu baax am nga yoolu ku ko def yoon woowu nag moom la ñu teg lii nag li tax mu def ko xaw ma lépp waaye mën naa ci tudd ñett rek moo di bi ci njëkk moo di way juróomu tedd woowu daf ko fonkoon lool fonk xam-xam fonk jàngale ne fii mi ngi nekk ci kaw suuf li mu ñaan yàlla mooy di nekk di jàngalekat waaw li mu naan li mu ñaan yàlla mooy bu bu mu dañ mukk di jàngale di firi alquran ak di ko jàng loolu rek moom moom moom la ñaan yàlla beneen bi ci tegee moo di soxna si dafa xam ne te loola mu ngi ko jële ci mbindu waajuróom bu tàddi moo di sëñ Tuubaa ay li muy bari bari li muy rëy rëy rëy li mu bari bari karaama karaama bi ci gën a màgg mooy taalifam yi mooy mbindam yi kon mooy téere karaamat yi xattu yat yi wa fii fiihi wax wa jumlatal xuyóori xostu la wax kon sama karaama mooy li mu bind lenn lu nekk tabax ma neex na ca roy ma neex naa tabax tabax bu rëy leneen itam lu nit def ma neex na ci rëy waaye nag taalif moom moom la ko kenn munta a fekk surtout nag li mu taalif ni mu toll kooku moom mooy karaamaam kenn ku nekk même yonent yi dañu am karaama karaama Sëñ Tuubaa mooy li mu bind e mu nekk nag loo xam ne dafa xam loolu ñaar la ñetteel bi moo di soxna si xam ne